maa ngi tudd Cheikh Amdry Diall euh, maa ngi tudd Cheikh Amdry Diall euh, yore lépp lu jëm ci wàllu organisation ci kër gi ak euh, communication di rakk ci sëñ bi di taalibe bi mën a jàpp ci liggéey bi moo di ni xam ngeen ni bu weer wi teroo taxawaay bi kër Mame Diall am ci togg ndogu yi muy loo xam ni déyaale ñaari mag la woon niñ koy faral di waxee Cheikhul Khadim moo ko digaloon Mame Ridial ci nekkam mu daan ko doxe di ko waxe di ko jëfe ba jóge fi njabootam yi mu fi bàyyi yëpp lu tàmbalee ci sëriñ Cheikh Fatim mi ko njëkk a wuutu sëriñ Amdi Sekk Ridial mii suñu waajur ca borom pàkk bi ñu taxaw ak Serigne Cheikh Diop Mourou Massamba ak Serigne Cheikh Penda ñi nga xam ne ay doom lañ ca wutu ko fi kenn ku nekk taxawaay bu mel noonu nga ci amu ba ci Cheikh Ridial Seck gëm Bamba mii nga xam ni moo nekk ci kanam mboolem ku yaakaar maam Ridial di xalifa général kullu Ridialu la muy xalifa général kullu maam Ridial liñ ci gis nag lépp ak cant la rek ak ku yokk ndax xan nañ lu yokku lu nekk ma ngay wàññiku bu weer wi teroo fu Ridial nekk moo xam ci biir réew mi moo xam ci bitim réew xam nga la la war ci weer bis bi da boole sa alal sa wërsëg sa xalaat yëpp andi bu ko defee ñu jaarale ko ci jëwrin yi nga xamante ni lantinoor lañ du ñu tey diw lépp lu taalibe yi joxe ci yoonu sëriñ bi ñu delloo ko ci sëriñ bi loolu moo sabab nag yi ngeen fi gis ak giléem yi ak gàtt yi ak lenn ci ginaar yi deme nii mu demee ak yeneen yi ñu koy booleel ci xeet yu ñuy naan ak yooyu loolu yëpp wàccaay la woo xamante ni bu am solo la ndax ku bokk si ñun bu weer wi xasee teru barax la wooy bu xasee dugg jàpp nga ni la nga war a def mooy jébbal sa liggéey sëriñ bi bala ñuy dem ba di ko soxla moo tax ñu samp fi benn commission boo xam ne ñooy saytu mboolem lu jëm ci liggéey bi lu fi nit di lu jaar ci man ak lu jaar ci yeneen jëwriñ yeeg ku mën a jaar ñoom lañ koy jébbal ñoom ñooy évaluer programme beeg ñooy def lépp li ñu war a def ba yëf yi ni ñu ko tàmbalee itam noonu lañ ko fas yéene àggale ci jàmm. waa toggin wi mooy dañoo gëm ni jamono yu ñu toll amut jaamu yàlla gu gën a rëy togg ñam jox doomu aadama bu ko yittewoo ñi nga fi gis ñëpp ay gor lañ liggéey ba am wërsëg wu sell àndandoo def ko ci yoonu yàlla wii ñu koy togg buñ koy jëfa buñ koy buñ koy togg itam kenn ci mbooloo mi ngay gis nag yi yi fi dee gileem yi koo xam ne dana ci mus dara amul lépp ndax ñi ñu ko yët mooy ay gor di njabootu Serigne Touba gi nga xamante ne nii ñi ngi jaamu yàlla ñu fas leen ko yët ñu dogoo ko loola nag fasuñ ci yéene eh, di mus dara mu mel ni des lañ leen yët kon loolu su ñëwee saytu nañ équipe bi koy war a togg dinañ ko togg toggin wu sell àndandoog mbooloo mi turu yàlla wi dem jébbal ko sëriñ bi. ñuy soññ suñu bopp di ko soññ ñëpp ndax liggéey bi ñuy def ay ay jaamu yàlla. ay taalibe Serigne Touba lañu koy terale moo waral ñu sonn suñ coono bi depuis weer yi ci ginnaaw ba ci li des ci weer wi ci suñ kanam yàlla nañ ko tàmbalee bisimilah rahmaani rahiim àggale ko alhamdulilah maanaam liggéey bi li muy rëy rëy rëy ak dayo bu mën a am teral teral ñuy woor rek lañ koy defe ca yàlla ak sëriñ bi rek tax kon nag li ñuy sant suñu bopp di ko sant mboolem ku ñu àndal ndax fii gis ngeen ay gone rek ñoo fi nekk képp ku ñu dajeel ci yoon wi nañ xam ni teraanga ji ñu yor ñu woor lañ koy lañ koy lañ koy lañ koy lañ koy terale kon nag bu ñu dajee kenn koo xamante ne nii dañ lay manquer de respect wala ñu lay toroxal wala ñuy indi benn fitne ci ci ci loolu laay dénk sama bopp di leen ko dénk. mënuñ ko sax estimer ndax li ñu xam daal bu ñu xëyee dinañ kumte bu ne dinañ defar gileem chaque jour ñu defar nag lu fi ñëw ci lu mel ni xar walla wala ginaar dañ ko ciy def. bañ nañ ko ba dawaa iratu jàlla yi fi nekk sax bu kumte jotee da ngay gis ni ñoom kenn ku nekk dangay ngay génnewaat sa ñaq jaayante ndax daaw boo dee xool rek am na ci daayira yoo xamante ni yokk nañ ci luy toll ci vingt cinq bool wala vingt sept bool yoo xamante ni bokkul woon ci liggéey bi kon loolu du loo xamante ni mën nañ ko estimer di ko xayma ñun daal lantinoor lañ duñ tëyeeg diw lépp lu ñëw ci liggéey bi tey jii bu milliard ñëwoon ñu def ko ci bu subaa bu un ñëwee ñu def ko ci bu bu ginnaaw subaa la ñëw rek ñu def ko ci du loo xamante ni da ko mën a xayma naan temps lañ lañ lañ lañ def si biir weeru koor bi wala temps wala temps ndax ñii même ñu yore waañu sax dañuy am ay jaayante yu ñuy def ci seen bopp am ay nit yoo xam ne dañuy bëgg a barkeelu di jaar si ñoom kon nag xam nga ak lii jaar si ñun ak lii jaar ci yow kon loolu ne kenn mënu ko xayma nii lii la ñuy def ci koor gi wala déet xam nañ ni daal saa bu ñu xëyee mbir mi day gën a yokk taar bee kattan bi day gën a yokk li ñuy wax nag toujours mooy forme bi dara waru ci sens duñ ci changé dara forme bi mooy na ko Cheikhul Khadim digale woon maam di jaal borom kër gi waaye li ñuy wax nag taar bi ak kàttan bi lépp luñ mën ci yokk ko dinañ ko def incha allah ci loolu lañ nekk amuñu yitte amuñu soxla euh, lenn benn yitte lañ am benn soxla lañ am muy sëriñ bi am ak bëggam ci liggéeyu ndogu yi ñu koy def